l'école ay hôpital waaye tamit suqali gox yi ak gox-goxaan yi loole lépp nag ñu mën koo taxawal ci rek impôt yi waaye nag ñu bari njort rek ni askan wi réere nañu loolee ndax it fii ci suñu réew ngir jot ci yooyu la impôt di jafe-jafe bu rëy ci kilifa yi loolee waral nag ñu taxawal rek bi la tàggat ci fiscalité boo xam ni day tolloo pare it sax dàkk jëmale ko rek ci société civile bi nga xam ne rek ñoo dox diggante nguur gi nekk rek askan wi. organisation société civile yi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllu finance publique fiscalité euh, dañu soxla expertise gën a développer expertise ak ay compétence yu ñu am seen biir pour mën a def seen liggéey muy ñoo xam ne ni dañuy jéem a saytu politique publique yi ci wàllu fiscalité nu muy doxee waaye tamit jege population yi pour di xool mooy seen njëriñ. boobu boobule tàggat nag international budget partnership taxawal ko ànd ci rek ak institut supérieur de finance ngir rek dolli mën-mënu société civile bi. du nekk programme boo xam ne dañ ko élaborer nii rek ci bureau mais daf nekk loo xam ne ñëpp ñëpp ci nangu. donc euh, pour ñu lancer ko. ak rek pétrole bi nga xam ni moo feeñ nga xam ni dafa rek war a dugal loxoom bu baax ci budget bu état bi Ibrahima Sarr jàpp ni rek war nañoo xoolaat suñu yenn jëf jëm ci fiscalité bi. fiscalité li nga xam ne da euh, nguur gi wala euh, état bi da koy jël pour financer budget am loolu nan nañ ko mën a seet pour que d'abord ci benn wàll gi équité maanaam ku nekk li nga am sa kàttan nga fay war nañu seet suñu dëkk aussi nan nañuy def pour que équité bi ñu nag yeneen yeneen yeneen dëkk yi nag il faut que maanaam dafay doon loo xam ne boo ko téyee ba nga ci mën saytu activité yi. bile tàggat nag lañu ci jublu di rekk taxawal ay spécialistes yoo xam ne seen xam-xam dina màcc ci wàllu fiscalité nga xam ne rek dinañu gën a mën a amal seen tàggat waaye tamit seen sensibilisation jëm ci état bi ak ci askan wi.